Touba Mbul Kayel dëkkub Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir bi ñëw fii xaw naa métti ndax jafe-jafe boo xam ne am na ko ci wàllum yoon mbooleem yoon yi nga xam ne ñoo fa jëm bàyyi ko ci dëkk yi ko wër yoonu suuf la wala rang-rang mu métti lool ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi ak askan wi ba tax na ñu yee ci yàbb waxtaan naa aussi ci gouvernement bi ba am naa fekk directeur Azurut ñu xoolaat yoon wi li ci des it yéen ñëpp ko fekkee bi président toogee fekk ci veille bi waxtaan naa ci ak sëriñ bi euh, fàttaliwaat ko yitte sëriñ bi moom du ñaan dara liggéeyam sëriñ Tuubaa moom looloo tax mu def waaye nag yittee boppam moom benn yitte la am kon nag euh, maa ngi sant président waaye na xam ne dañ ko gudd jot li message bi ni mu waree te lii ma ko wax rek mooy dëgg mooy yitte sëñ Muntaxa benn yitte la muy yoon bi. chauffeur yi nga xam ne dañ fiy jaarale seeni woto moo xam ñi def transport en commun wala ñi yor seeni i yi bopp ñoom ñëpp xamle ne yoon wi baaxul ci seen woto yi rawatina clients yi ñuy indi. yoon bi moom wax dëgg yàlla naqari na lool naqari gën naqari boo xam ne buñ ci dimbale woon daal boo nekk loolu daal dafa gën a lool ndax maanaam yàq na suñu woto yi. ñoo ngi nii gars bëgg nañu liggéey mais mënuñoo liggéey quoi ñun nag sant nañu Basiru bu baax ndax fan yii yëpp ñoo ngi am liggéey boo xam ne yaa ngi dégg chaque jour ñoo ngi bëgg indi client yi mais bu ñëwee client yi ñuy fënd fënd dañuy bëgg a dégg mais nag ku ñu si jàpp dañuy jël daal. sa image bi moom baax na diggante Touba ba diggante Pif ba Ndiéna daal non baaxul si oto yi baaxul si mairie bi baaxul si benn client wax dëgg yàlla ndax ni mu bonee si oto yi noonu la bonee si client yi ndax ñun nga dugg si oto si biir oto pare naa nii nii di kër si ci moom baaxul si benn mais sax nga benn client day dogal taxaw di wàcc may wala di sëriñ bi nag bu nekkee ci dëkk bi taalibe yi fu ne la bàyyeekoo ngir ñëw di ko ziyaare si am na ñoo xam ne dañuy am jafe-jafe ci yoon wi ak oto yoo xamante ni duñ mën a agsi loolee lépp ñoom ñuy ñaan ki nga xam ne moo di njiitu réew mi mu taxaw temm ci yoon wi ngir defaral leen ko ngir sëriñ bi buy ñëw ci dëkk bi mu mën ko yomb lool rawatina taalibe yi. sëriñ daal moom yàlla foofu daal waaw yeneen dëkk yi am na dëkk bi moom chaque jour chaque jour fii moom chaque dimbale woon daal boobu nekk loolu daal dafa ñu nañ ko fu nag ba fan yee si ginnaaw biñ ñëwee ci Macky Sall ci fii nii ci croisement Kayar bi rek ñooy bëgg lool lool ñu defal ñu yoon wi quoi. ñun ñu mën a comprendre euh, attitude yenn loolu moo tax day bisuñ bi bëgg ñëw ma seet ay bon volonté yu am solo ñu jàppale ma ba ma fàkk yoon diggante Kayel ak fii fàkk naa ci ak fii kon nag euh, maa ngi sant président waaye na xam ne dañ ko gudd jot li message bi ni mu waree bu ko defee dem gënum Sëñ Tuubaa dina ko am fii dina ko am fële loolu rek laay lancé président dëkk bi nga xam ne nag moom moo di Mbul Kayel di dëkkub Cheikh mun Mountakha Mbacké Bachir nekk na dëkk boo xam ne sëriñ bi fonk na ko lool fonk googu sax moom moo tax taalibe yi di ñaan njiitu réew mi taxaw ci temm ngir li nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ñu mën ko ci jàppale ba lépp mën a am